jërë ngeen jëf mbokk internet yi no ko gisandoo noonu mu doon uh, patriote yi ñii rekk def lu rafet rafet ay image ak ay vidéo di wër rek partout ci internet bi ay gox goxaan yi bëri bëri ci senegal ñu daat ko fay nemmeeku na patriote yi jamono ji ab bale bu mat sëkk rek la ñuy def ab set setal partout rek ci biir uh, Sénégal loola nag mu doon lu xamante ne si na rek lu rafet lool lu ñëpp lu partout rek ci senegal foo gis rek gox goxaan kenn ku ne rek yang kan. ngi koy defar bu baax a baax di ko jekk-jekkal lu das koy war di defar kon nag patriote yi ji rek yaakaar naa ñoom sa nag di ko defar bu baax baax bu nemmi koo rek mën nan ay weer si ginnaaw patriote yaakaar naa toluñu won li booba rek ña nga woon si ab xeex bu métti ak jàmmaarloo ki nga sina ne si na moo di njiitum réew mi ki fi nekkoon waaye nag loolu lépp rek dati di nay jeex ginnaaw ba Bassirou Diomaye Diakhar nyonye daal di jëlee rek li gi rek patriote na mukk rek ko seetaan ndax rek am réew bu jege ña fa nekk ñoo jagal ña fa nekk ñooy liggéey pour rek mu daal di mën a avancer dem si kanam ba tax rek ñu daal di jàpp ñoom ñëpp rek tudde Sénégal vert booba nga xamante ne na rek moom la ñu bëgg di ko gis si yeneen dëkk yi loolee rek lu war a mën a nekk la te lu mën a gis ci Sénégalan la ba taxit ñoom ñëpp rek ñu jàpp si ay gox goxaan ay groupe yi groupe yoo xamante ne si initiative bi kookee ka organisé mu di kookee di coach Jim Ndiaye ba tax rek mu daal di wër partout rek mën naa ne si Sénégal Sénégal ay gox goxaan yu bëri bëri di wër di set setal ak di waajaala rek li nga xamante ne si ne moo di eh, toogu kooke di Bassirou Diomaye Diakhar Faye le deux bi rek ñu war a de passation de pouvoir kon nag Bassirou Diomaye Faye patriote yi jiitu kon nag Bassirou Diomaye fay mu mel na nag patriote yi des nañ koy jiitu nag sa liggéey ba nag kon nag yaakaar naa war na leen a jàppale bu baax a baax lii nag lu ñëpp rafet la di ko chalie bu baax a baax mu di lak patriote yi jamono ji lan yi def rek di set setal ak di bale li nga xamante ne si na moo di bi la dëkk